xam nga xam nga on ne peut pas parler de de presse. Mhm. par rapport à l'exercice de la profession. en référence avec les réseaux sociaux. Ouais. parce que oui. réseaux sociaux yi pardon les réseaux sociaux sont considérés comme des médias intermédiaires. d'accord benn Khalifa Ndiaye ak benn Fatou Kiné ñoom ñooy toog seen kër en leur qualité de directeur de publication et directeur en chef. Euh, alors que yow sa wàllu bopp dafa am loo xam ne code de la presse bi tey. ah daf la daf la tënk. dafa am loo xam ne tribunal des pairs daf la tënk dafa am yeneen charte yoo xam ne da la tënk par rapport ak li nga xam mooy seen métier seen métier seen métier journaliste. Mm. bi ñuy wax ay liberté de la presse gis nga Thomas Jefferson c'est le deuxième président des États-Unis d'Amérique moom bi mu accédé au pouvoir li mu doon wax ci liberté de la presse. Mhm. ba jamono jamono ji boo ko xoolaatee dafa mel ni tey la koy doog a wax. Mhm. donc de ce point de vue là. Et on ne fait pas, on ne verse pas dans l'émotion collective. On n'est pas, par, on n'est pas là pour des soutiens de principe. Mm ce sont des soutiens d'engagement par rapport à ce que les uns et les uns, les autres et les autres. Non, il n'y a pas les uns et les uns et les autres et les autres. Aujourd'hui, nous devons être, nous sommes une corporation, mhm. nous devons être une, même bloc, une même famille. On prend un inspecteur des tooñ jàpp nañu ñoom dañ ko tooñ. oui ba teg ko loxo. mais est-ce qu'on peut défendre aveuglément. non non ce n'est pas défendre aveuglément je crois bien que les faits sont sacrés et le commentaire est et les c'est que comme ni ko maître waxee ce sont deux journalistes yoo xam ne dañoo seen xam-xam màcc na si wàllu wàllu yoon Babacar Touré peut-être que certains ne le connaissent pas moi je le connais depuis que nous sommes reporters au moment où il était euh, à l'observateur Babacar Touré def naa am na ay liggéey yoo xam ne ay jamono si affaire meurtre mhm. su ma lay jox benn anecdote boo xam ne def na ko liggéey am Mbour je crois bien mhm. liggéey na investigation ba moom mutu jox piste ki ñi ñoo di police ba police ñi nga xam ne faatoon nañu euh, benn benn bakk kenn donc moom il a fait un ouvrage dédicacé par par maître Boukounta Diallo sur la Côte d'Ivoire parce que jamono ji nga xam ni en 2001 ak jamono 2002 bi mu nekk en waaw bu muy nekk en pleine guerre il était en Côte d'Ivoire te je crois bien qu'il a fait face à la mort te pourtant il y était en sa qualité de journaliste boo wëlbati ko bindu ouvrage le jour bi muy dédicacé l'ouvrage j'étais à ses côtés je le connais très bien am na yoo xam ne def nañ ko si wàllu liggéey tey boo duggee si benn bloc bu mu doon def man moom ak Abdoulaye Diedhiou bu l'observateur et tout def def nañu ay investigation si ay rencontre boo xam ne si yenn si wàllu benn secte bu fi nekkoon la ay jamono avec tous les dangers mm-hmm. ak yu demee noonu ki nga xam ne moo di Pape Ndiaye mais en li mu wax àng ko yow da ngay toog si plateau Hadj Malick toog plateau di wax xëy na mun nga jot information tu es am nga ay source am na noo koy waxee xëy na ñu jàppee ko dérive mun nga wax loo xam ne da nga ko jàppee si waxin ñu jàpp di dérive la suba ñu ñëw teg la loxo su boobaa itam da ngay gëstu bëgg a gis ña nga bokkal famille wax ma sa waa kër mais sa ñi nga bokkal liggéey bi te je pense que seen ne pas des soutiens de principe encore une fois ce sont ce sont ah, ce sont ce sont des soutiens d'engagement et et et de manière ferme je crois bien que tey da ngay gis nga baal ma Kajoor France États-Unis Mali Côte d'Ivoire fu mu munti doon bu ñu tegee loxo benn journaliste kuréel yëpp UNESCO ak ay Nations Unies et tout même bu ñu def seen rapport dañ ko si fàttali te gis nga liberté boobu ñuy salfaañe dafa bokk si yenn kuréel yi par rapport à des partenaires techniques financiers du Sénégal yoo xam ne mhm. ñoom conditionnalité si ñoom balaa ñoo ñëw ñu mën a saytu mbir yooyu te liberté de la def seen